Ah, yàlla nangu si ah teewaay bi mooy mbokk xarit xam nga Sénégal pour man tamit aussi waajurum nekk suñu waajur waaw kon li xew tey ñun ñëpp ku ci nekk rek mu ko jaale sa moom Aziz moom Aziz yi ñëpp la nit ku baax la waaw nit ku mën nitam li dafa aussi waaw jàmm rek mu nekk suma mag ba pare tamit aussi suma papa papa aari sëñ suma papa Ali la ñu ñëpp waaw kon tey ñu ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk dëj bi waaw jadi loolu tagi tamit la ak euh, frère am yëpp ah ki mel ni Baye Ndiaye ak ñoom Masady ñëpp jàmm rek lañ sekk ñun waaw loolu la waaw ñoo bokk ndey bokk baay parce que sport bu boolewul rek warut a tàqale d'accord mën duñ nga dem tamit wax nga xamante ji coow la bokk ci audience bi nga xamante ni yéen bëri amoon ngeen ko mu coow alors tey lan ngay dalalee xelu Sénégal nga ma dañ nekk ci dëj loolu mën ma cee wax ba beneen yoon incha allah non non merci ma pire yi waaye nee na ba aale dafa woon njabootam yëkkati ba cent dix millions ne ko ay bor mu bind ko ci kàddu mu ne man de xaw ma kañ la am Dakar waaye nee moom lu mu seetlu ñu ne bàyyi àll daal am na lu mu def ci ñoom dafa dem mu jël lu mat cent ay bor effacé ko ba koy dund ilimaan nee na sëriñ nee na ñu ngi gërëm bu baax seen bàyyi boobu nee na bu taxawee ci diggante laa sukura ala waajib ak laa sukura illa ala waajib cant la sa bàyyi doon wax sëriñ Mansour nee na kon nag loo xam ne tey dimanche bu jot mu génne xaalis bëri nit doomu aadama am si ay dépense di si dund kon kooku tey buñ leen recevoir képp koo xam ne nii nit nga dañ ci war kontaan félicité ñi nga xam ne nii tey ñoo fa demoon ak képp koo xam ne demal nga fa ak wax boo boo fa wax waxul làmb lañ fa intérêt làmb la du intérêt benn doomu aadama intérêt personnel amu fa intéret làmb la lu fa lu fa ñëw it làmb moo ko moom bërki dem ba CNG woote na ministre bi nga xam ne mooy Samba Ndiobène yor li nga xam ne nii moo war a monter euh, li nga xam ne mooy mutuelle santé ñëw na ba ñu war a monter société bi nga xam ne tey moo koy doxal muy conseil ma administration loolu mooy wan ne président li mu waxoon mu ngi si te loolu njëriñu làmb la jërëjëf jëf en audience particulière toog moom ci nekk maa ngay waxal ni yàlla yéex bis fa fi jógee jàppal ni samay doom bu la neexee fu ñu jaar fekk fu ñu jaar bu la neexee sikki ndax tabarakallah man seen baay sama ginnaaw ba ndaw tabarakallah bu doon dañuy fay tey pourcentage ci ki la jàngal yar la dimbali la orienté la ci yoon jàngal la métti boo xam ni ma nga cee jariñu moom la Rasulullah choisir muy métier commerce nee na Baye Baye Alain Ndiaye day nekk actionnaire majoritaire ci li nga xamante ne moom la ñu xam ci wàllu commerce am ci fit am ci ngor am ci njub am ci engagement ba tey fu tuddee. opérateur ak yu gën a mag ci réew mi boo doonee jub nee na leçon de morale yooyu ak encadrement boobu suñu baay bii yàlla ko yàlla yokku leer bàyyi la yàlla jaay moo ko def ci ñoom. nee na balaa lay jaay bi ñuy dugg boo gis xam nañ bu baax la wax seen yaay ci yii. أو كونه ملكا قل إنه صالح مستقبل nee na Baye Alioune Ndiaye bi ñu indil ku bëgg sax nit ku baax la wa fi wilayatihi aw kawnihi malikan qul innahu saalihun tustaq wa toxtarin nee na boo mosaan gis bi dem nga di góor gu baax ngi nii nga di jàmbaar pire ngi waaye nee na dafa am lu mu takk war koo séddee def ko ci cadre lu yëpp soxla sa waxoon seedeel pour baax seen xarit nee dafa woo njabootam yëkkatul nag cent dix ñoo xam ne ko yore ay bor mu bind ko ci kanam muy mën de kañ la ak naka la waaye iliman nee moom mu seetlu nee na bàyyi aale daal am na lu mën def ci moom dafa mel ni dafa yëngoon ni day dem mu jënd nag cent dix ay bor effacé ko bal koy jullit Abdou Aziz noonu la ñu war a jàllale. léegi ñi sëñ bi àndal nañ leen wax ne ci kanam amatu place bu nit toog. bisimilah saa. أتمم لنا نورنا وفي جرائمنا تقضي حوائجه يا واسع الرحوم وعلي أجمعين سلام ربنا دائما نعم بزهدنا يننا حمدا يوافي بأنعام لنا وفراد لربنا ويكافي زيد بالنعم نبي عليه أجمعين سلام ربنا دائما يلا يلا نغني وسيء القلب قد جئنا وليس لنا من التزوق هدوء

waaw bàyyi ma jàll maa ngi ñëw mu eh, ngay màgg ah, <laughs> mais loolu <laughs> waaw <laughs> mais xaar xaar xaaral ma jaale ba pare waaw ma ne ko xaar leen ma jaale Idrissa na nga def ça va alhamdulilah ndeysaan waaw